ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha xam naa wax ju gàttalee doon ndax waxtu dañoo xoj te lislaam moom lépp lu ñuy def di ko ci jëme la ci jiitu mooy julli ndax assalaatu imaadu diin fa man aqaamaha fa qad aqaama diin wa man hadamaha faqad hadama diin bu doon tawax bii lañ koy misaal mooy keno bi ko téye nga xam ne bu taxawul rek day mabbu kon ci ndigalu sëriñ bi ñu ngi nuyu bokk yi fi tedd yi yu tedd fi teew yëpp di bokk taalibe yi di bokk yi nga xam ne ñoo bokk ci sëriñ te bu ñu tegee nuyoo bi ci loxol Cheikh Saliou Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadou Mourtada mi nga xam ne mooy kilifa ak jataay bi waaye itam jiite lii nga xam ne waa mubaadara la mubaadara tayiba la boo xam ne waa daaira Touba ci kanam ñoo am xalaat bi ci njiital suñu kilifa gu baax gi di sëriñ Abibu Mbàkke Cheikh Mamadou Fadil ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la seqal kuréel gi yëpp te buñ ci tuddee sëriñ Abdul Ahad Mbàkkeem sëriñ Abibu mi nga xam ne mooy jëwriñam ci liggéey bi bu mën a yóbbaale bokk yi ñu ko seqal yëpp ndax Tuubaa ci kanam moom daayira la boo xam ne mboolem ñu yaakaar suñu tubaa ñëpp a ci biir amut frontière ndax moom ponk bu rëy la ci dëkk bi ci liggéey Sëriñ Tuubaa te yàlla defal leen ci tawféex la Serigne Touba doo wax ci naxju loolu sax jëmmoo ko tax a jug waaye mënees na ko in misaal wa min saadati lfata xaytu xasat an laa yuruddahu fuaadu si rasal waaye yàlla defal leen ko te Serigne Saliou daan wax ne Serigne Touba nee na fu xoolub taalibe jëm rek fa la fa la xoolum jëm te nag ñi bëgg lu baax ñépp maase nañ ci seen xon nongu ko ngir xam ne ci lu baax rek leen tax a jug te ci lañ nekk te lépp lu teg na ci yoon kon nag bu yàlla defee ci ñoom xam ngeen ne fànn yépp ña ngi góor góorlu ci defar ci dëkk bi bayuñ genn fànn nag ña ngi ca assainissement ba ña ngi ca tëli ya ña ngi ca làmp ya ku ne xam ne ne liñ fi def ci làmp ren bari na daare alxuraan yi itam seen taxawaay ci ñoom ci ànd kook suñu doom sëriñ Mamour Mbacke sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke Fallilou ak ñi mu ko seqal ba ci sëriñ Saliou mu sëriñ As Jaxate ñoo ñëpp di ay jàmbaar yoo xam ne koo ci seen rek xam ne kii dara itteelu ko lu may liggéeyal sëriñ Touba ba yàlla def nag lii nekkoon ab roq bu sew boo xam ne ñu baree baree bare dañ koy fàtte te dara jiituwu ko ci lislaam muy muy zakat ndax boo xoolee alxuraan suñ borom fu muy waxee ci fu mu waxee julli rek asaka la ci teg balaa xajjul bayte ñëw wa aqaama salaata wa ata zakata walam yaxsa illa fu baree bari boo demee ci alxuraan bu tuddee julli rek asaka la ci teg te mel ni nit ñi dañ ko woyofal ba tax ñu di ko fàtte ndax ni alal di taq ci xolu borom tax waaye nag dañ xam ne asaka ji bokku ci suñu alal dañ koo muut xus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kon asaka nit ñi buñ xamoon li muy jëriñ xam la ci suñ borom jubloon kon ñëpp dañ maase ci gën a góorgóorlu ci foog ko ndax lim ci gën a jublu mooy dana laabal alal yi ki koy def ndax alal ji des ci te génne goo asaka moomu goo ko bu xasee mat nisaab ba asaka war ca rek ci nga xam ne suñ borom waral na ca asaka ak ci ñi ko war a jox fonk gi mu ko fonkatal sax néew na suñu borom lu muy détaillé ci biir alxuraan daanaka lu weesu miraas ak yu néew lu ci ëpp de junj rek borom xam-xam yu àggale ko waaye innama sadaqaatu lil fuqaraai kii masakini wal aamiliina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqaabi wa min sabili faridatan min allahi wallahu alimun hakim ba leeral ñi ñu ko war a jox ñu mu doon wal muallafati qulubuhum jooju boo demee ci ibnu asir mi ngi wax ne muallaful xalbi wa muhtaajun garib xaasin xaw nu mu ko waxee sax ca ila axiril bayt kon asaka ñi ñu ko war a jox boroom xam-xam yi tënk nañ ko lu ci ne rek am na ci lislaam te bu ko ñëpp maase woon ci di ko def lu bari ci ñi néew doole te asaka ñu war koo génne di leen ko jox boobaa ñooñu daal leen wàcc te sëriñ Touba xam ngeen lu bari ci taarix ne nit ñëw na yëkkati addee di ko jox asaka ne ci biir Serigne bi day dem na ko génneel asaka yi dooru andi addee ji. kon na bokk taalib yi gën a yeewu ci xam ne asaka bokkut ak addiya asaka àq la joo xam ne àq suñu boroom la yow mi liggéey alal ji ba mu leew la ba waxtu fekkaat ko fa loolu da ko koo moomutul génn ko da war moo waral xam ngeen ne naka jëkk ci lislaam baytul maal téere yu bari da ko ci daa jàng waaye daanaka nit ñi dundatuñ ko sax ndax amatul. ndax yooyu ay attale yoo xam ne nit ñi day dem ba fàtte ko wal wal aamiliina alayha boo ko déggee booba ci yooyu jamono dañ daa sàkk ab kuréel buy dem di ko laaj ak di ko joxe kon kuréel gii ñu laat nañ xam ne loolu buñ ko nosee comme ñoom liñ baaxoo def ci seen mbir yépp luñ ci dugg yàlla defal leen ci ndimbal defal leen ci tawfeex ndax dañuy jiital xalaat bu xóot teg ko ci yoon door koo yëkkati ndax lii kat bañ ca laajee sëñ bi ndigal yàgg na kàddu yi ci Cheikh Mouhamadou Mountakha yëkkate ci soññe it doy na sëkk ay kàddu buñ ci toogoon bu guddi di wax it mënuñoo romb kàddu yi la mu wax kon nag Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na sëriñ Abibu ngi leen di sant di leen gërëm yàgg waa daayira Touba ci kanam ngir xam ne yéen ñi ko seq ñëpp te dama koy faral di wax muy yow di sëriñ Abdoul Ahad ak ñi topp ci seen ginnaaw dara itteel loolu lu may Sëriñ Tuubaa nekkuloon ci dara lu may Sëriñ Tuubaa loolaa waral itam ñu topp seen gannaaw ñëpp li ñu joxe seenum xel di ca dal kon loolu yàlla yàlla yàggal ko ba li ngeen sumb bëgg koo jàppale ki fi nekkal Sëriñ ci biir dëkku bii nga xam ne Sëriñ Tuubaa dëkk bi rek mooy li ko itteeloon tolu fu waay defee moom nga ko defal yàlla yàlla gën a barkeel kuréel gi ba lii ngeen sumb tey mu dem ba nekk ay milliards yu baree bari yoo xam ne dana mën a amal njariñ ñi nga xam ne néew nañ doole te bari na ci jamono te suñ borom wax rek di fàttali ni ñu war a dimbalee ñi nga xam ne dañoo néew doole li yunfiq min zu saati min saatihi wa man qudira alayhi risquhu fal yunfiq mimma ataahu Allah waaye nag kuy def lu baax nag day fekk nga génn asaka ba wóor la ci des sel na lew na yaa ko moom nga dooru yëkkat def lu baax bu dul lool rek lañ ca yéene it jëf ji dee màgge kon ñu ngi jeexale foofu kàddu yi di sant ñi fi teew ñëpp di gërëm di ñaan suñ borom lim ci deele ci tuyaaba yàlla ñu tàbbal ci biir te dara ci njistal bañ ca dugg muy laa tubtulu sadaqaatikum bil mani wal aza yàlla ñu ko yàlla defal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi